indi yoo xam ne tey war na jàppale askan wi pour ñu mën a am ndox ndax kenn ku ne xam na ndox la muy doon ci doomu aadama ak la muy doon ci lislaam lamp tamit la muy doon leer leer moom mooy lépp kon jàpp nañ ne soxna si gis nañ sa taxawaay délégué de quartier yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ci jàppale bi ngay jàppale askanu Alieu ak askanu département Mbacké ak Sénégal gépp ñu la koy jëfal soxna si di la wax ci kaw ci kanam. suñu borom du jox loxo ak loxo yadin bi yadin lépp lu lay jox. dala koy jaarale ci ay doomu aadama ba mu egsi ci yow kon nag alaa kulli haalin yow ñu sant la gërëm la ci jàppale bi ngay jàppale euh, askanu Aliya askanu département Mbacké ndax nag euh, tollu nañ jamono boo xam ne ñu bëri ngi wax waaye jëf moo leen të te yow alhamdulilah wax ji néew na te jëf ji rey na bari na kon loolu nag waxuñu ko ngir dara dama nekk sab géwél wala dara dama wax la nga def ma wax ko wa ma sahidna illa bi ma allimna kon nag nit ki boo koy seede da ngay seede ci moom la nga gës ci moom te loolu laa gës te loolu laay seede kon fi may taxaw nii jàpp naa ne adduna gi yëpp may gis wala may déglu li may wax dama koy wax lu mu leer te mu nekk loo xamante ne lu wér la yaa ko def ñu wax ko te mu doon jëf ju baax kon buñ taxawee fii tey buñ waxul gore wu gorewuñu ndax li nga fi jot a dugal lépp loo fi mos a diggee def nga ko te leneen la leneen loo fi diggewaat am nañ ci yaakaar ndax nag ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer bu la nekkee wutal mbalaan nga xam ne yow moom boo reeree dam tëdd <laughs> kon loolu euh, damay wax rek ne ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax nag wax dëgg fa yàlla lii nga fi def di investissement bu toll nii di nekk ay ay millions yu du jeex amoon nga feneen foo ko mën a def te yàlla dogal. nga sa xol ak sa yéene ak sa xalaat ak sa ambition ak sa détermination nga ne kat lii damay dem ba ca allié ca fi gën a sori ci biir allié ma jël fa def fa centre de formation bu toll nii nga xam ne matière yu baree bare lañ fiy jàngale burki démb dong lañ fi mujjee joxe ay diplôme kon mën nañ wax ne kon soxna si gàcce ngaalaama askanu Touba askanu département Mbacké askanu allié ñun délégué de quartier am nañu koo xam ne mu ngi sunu kanam di ñu jàppale guddi ak bëccëg mooy soxna Ami Mbacke madame la Daz. di am kontaan ci yéen ndax ne aale moom man jàpp naa ne moo ko na jot ñu fi taxaw sax nag ndax ku la jox ndékki jox la añ boo diggee reer nga te li mu fi def benn politicien mus ko fee def bëkk dem di ñëw naa fi ay yi ñu doon joxe ay jii lamp yi mu leen di mu joxe ko te ba mën naa ne at yi yëpp noonu lay continuer yéen aale kon nag liy fay gi moom biir dubat yi mënoo bees rek ci nekk ndax liggéeykat la. bëgg na dëkk bi li mu yor xam na ko te mu ko def askan wi kon nag li ñu koy jàppalee mooy bureau bureau tam yi xam fi mooy baasam bu fekkee ne benn carte maman bees muy bi di ko ñaanal nag yàlla yokk ko bu baax ba fi mu bëgg àgg màgg fa te naa gën koo dooleel baax nag mi koy dooleel li mu koy dooleel tamit mi ngi ko dëkk tamit nag ndax doomi dëkk bi la te lim am mi ngi ko fi def waaye nag ñu ngi koy ñaan mu gën koo dooleel ndax koo dooleel ñu sant ñun. mais damay wax ci sama mbokku jigéen ñi ak waa Aliya. ñun waa Touba mën naa ne yéen a ñu ëpp chance ni ngeen ñu ëppee chance mooy ni soxna Ami toxalee bureau de vote am indi ko Aliya kon soxna Ami bu mu leen gën a goree ndax moom moo ñu nekk ci naaj bi ñu nekkaluñ ko ci naaj bi dem moom moo ñu nekkal ci naaj bi parce que moom mooy xëy 6 heures du matin dem liggéeyi wàcc fayeeku jënd ko matériel def ko ci ay formation ñu indil ñu ko. surtout xale yi dafa veillé ci xale yi parce que parcours am fi mu jaar foofu la bañ xale yi jaar fa. moo tax mu jël yéppam jox ko xale yi kon yéen bu leen nax soxna Ami ngallaawaay bu leen ko nax ndaxte nit ki dañ ne kon li ko ñëpp waxee rek ku la dikk añ ku la jox añ jox la ndékki jox dema nga tëdd sàngo te gis nga lii këram la mënoon na koo tabax def ko këram dëkk ci wala mu luyee ko mais def ko de centre la ko def. pour jigéen ñi ak xale yu ndaw yi mën nañ cee former yéen former leen ci former ci seen doom ba seeni i sët ñëw ñu former leen ci ñuy liggéey ami moo ñu tàggale ak waas jën bépp liggéey bu tilim te salte ami tàggale nañu ko. mi tamit soxna si nekk sama xarit trop mais fii li nga xamante si ni moom la président bëgg pour bépp nitam di ko politiquer soxna si la nekk ndax moo ngi def fii ay social yu dëgër di jàppale askan wi si ndox. si di xafe ban am ay courant ñi nga xamante seen loxo jotul seen ginaaw mu leen di jàppale jigéen ñi nekk fii nekk ay ay mbootaay ak yëpp soxna si moom dugal loxoom si ñoom bu baax baax baax te loolu mooy jàppale président loolu daal soxna si xam nañ ko si moom te di ñaan bépp ka nga xamante si ni jàppale président ñor na la nga gën a dooleel soxna si ndax soxna si fii si Touba Alieu mu ngi leen di jàppale bu baax a baax a baax a baax di ko ñaan suñu borom gën koo jàppale gën koo dëgëral ba yéene jëm am si jàppale président suñu borom gën koo kàttanal si barki Serigne Touba barki Cheikh Amadou Fadal. Euh, man maa ko tànn tànn bi nag du hasard ndax ku xam fi ma bokk muy que Serigne Modou Balla euh, su ma ñëwee Alié ñëw naa fu ma war a ñëw euh, lii buñ ci jotee liñ ko jënde day dem ci suñuy soxla. waaye yàlla mi def ba nga xamante ne bii mën nañ koo muñ def ko ci soxla askan bi ñuy ñaan yokkute bu tax lii nga xamante ne bii du dara ci lépp liñ namm ci Alya ñu mën lu ko raw loolu nag ñi fi jël kàddu ñëpp wax nañ ko dañoo jëm ci yu am solo muy ay élection démb kii duma bàyyi ma wax lu dul noonu Matar Diop moo jiite liste majoritaire bi ma topp ci ginnaawam ma fari Ndiaye moo jiite proportionnel bi moom mi mu topp ci ginnaaw ñu toog ma fari di ko woo yaa ngi ci terrain bi ma ne ko non dama leen di wax nag ku ne jël benn koñ ku ne gañe fa nga tànn ñu gañe ensemble mu ne ma foo jël ma ne ko allié laa leen assuré su ma jël engagement gañe allié nag ci yéen ñii laa compté nee naa leen nag ku ne jël benn koñ gañe ko ñu gañe ensemble man nag allié laa tànn lii ñu fi defit lu ñu yéene la bu ñu paree tuyaux yi xam nañ ne dina ànd ak gas dinañ ci teg ñaar fukki junni sëñ Daado jàppale leen ko ci ñi ngeen di fay pour ñu gasal leen ko suulal leen tuyaux yi parce que tuyaux yi kenn di ko teg ci mbedd mi dañuy fay ñu ko gas ñi fi wax tamit ndox bi war a traverser tali bi da ci am yoo xam ne day day jéggi suñuy suñuy compétence waaye nag maire buñ ci waxtaanee ak moom xamal ko ne ko soxla nañ bënn tali bi walla collectif bi dem toog ci sëñ safaa xamal ko ne ko tuyau kat ñëw na waaye tali bi dañoo soxla jaarale fi moom kàddoom dina egg fan fu sama kàddul egg lu ma ci mën tamit pour ngeen jàllale ndox bi mu jéggi tali bi dinañ ko dox waaye comme dañuy làmbatu nañu ànd làmbatu ba daj Alieu laa tànn bëgg naa nag Alieu moom saf sap mag saal liste bii nga xamante ni bii Matar Diop moo ko jiite muy conseil départemental ñu jëm ci te élection vote Touba am ci solo torop ma leen ciy tàllal loxo en tout cas daa sant bi sëñ Daouda ni ma ko waxee woon keroog noonu laa koy waxewaat tey yëfu waa Alieu la ku fi ñëw yéen a ko fi xajal dinañ ko organiser noo xam ne ñi ci bëgg a liggéey ku nekk ci la nga bëgg a liggéey dinañ ko fi def muy seen yëf. di seen jumtukaay donc euh, ñu ngi gërëm bëgguñu guddal li ñu fi indiwoon nag mooy jébbal leen lii ñu ngi leen di jébbal asaka sunu yéene sëñ Daouda euh, bu ñu amoon moyen bënn forage dañuy bënn forage ci àll ñu ngi ñaan yàlla nag moom mi nga xamante ne bii dara jeexul ci moom mu may ñu kattan may ko ñëpp ba mbébét yëpp suñu borom def ñu eggali ko. mètre de yoo xamante ne bii euh, délégué yi ñoo defoon requête bi. ne alie loolu moo fi nekkoon seen soxla lii ci suñu ginnaaw nag ay bale la yoo xam ne ñoo ko ci dolli téeméeri bale yoo xam ne dañ koy jébbal jigéen ñi pour jàppale leen ci li nga xamante ni bii tey dëkk yu mag yëpp mairie yi ñooy bale mais Touba moo am particularité boo xam ne jigéen ñi bale bi ñuy seddal dëkk bi sax dañ seen xol daf ciy sedd loolu nag mbirum Serigne Touba la du hasard parce que ci ci ville yu mag yi état mooy xool nu muy setale dëkk ba fii nag jigéen ñi ñooy daw di ut bale di ut mbubb di ut seeni kafe pour bale dëkk Serigne Touba bi kon loolu bu ngeen ñu koy defal ñun ñu dugal ci suñu loxo parce que ñun ñoo waroon a bale lu bi ngeen koy bale ànd ceeg cawarte tilim bi poussière bi di jóge ci suuf si di mel ni ay parfum ci yéen loolu yëpp Serigne Touba la ku ne ci liggéeyu Serigne Touba nag ñu fekk la fa ak suñu doole lu jotewul dara ak politique kon téeméeri bale yi ñu ngi koy jébbal jigéen ñi fi toog di leen xamal rek ne ci àndandoo bi ñu bëgg a àndandoo ak yéen lii tamit ñu ngi koy teg ci seen loxo sëñ Daado di sant di gërëm.